di am mbégte toog ak yéen tey jii ngir jàngat guddi gu am solo goo xam ni jullit bu ne mi ngi koy néggandiku di ko xaar ngir li ci sunu borom digee ci ay ngëneel ak tuyaaba ak ay may muy guddig laylatul qadri guddig laylatul qadri guddi gu màgg la goo xam ni nii alquraanul karim ci la wàcc inna anzalnahu fi laylatil Qadr, la sun borom wax inna anzalnahu fi laylatin mubarakah kon alquran ci la wacc tayit lepp lo xamni mi nga xaw ci jaam ni ci ay dogal guddi gi wax nañ ci la ko sun borom di lijeenti li war xew ci at mi do dog ko nak tek fi beurep malaika yi di doxal ci lepp nak ci kàttanu sun borom kon lolu moy li mooy tolloog li suñ borom wax ne fiiha yufraqu kullu amrin hakim guddi gii lay doon guddi la goo xam ni lu ci waay ñaan suñ borom dana ko ko may yàlla da ciy nangu ñaan guddi la goo xam ni it suñ borom nee na moo gën junni weer xayru min alfi shahrin junni weer mooy juróom ñett fukki at ak ñett ak ñeenti weer guddi gi moo ko gën nga xam ne tey bu fekkee ne yàlla dimbal na la ba nga dundal ko boo fi dundee juróom ñaar fukki at masalan di ko dundal moom guddi gi yaa ngi mel ne ku dund ñeenti junni at yoo xam ne lépp ci jaam yàlla nga ko def kon guddi la goo xam ne gu màgg la guddi la goo xam ne it malaayka yi dañ ci wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa moo nu leeral ni ñuy wàcc suñ borom wax na ci alxuraan ne tanazzalu malaaikatu wa ruuxu fiiha bi idni rabbihim min kulli amrin dañ ci wàcc ñoom malaayka yi ànd ak seen kilifa gi nga xam ne moo tudd jibril alayhi salaam waaye yonte bi moo ko nettali ci xadisu ibnu xabbaan al ak ak imaamul bayhaqi nettali ko ñoom ñaar yonte bi wax ne malayka yi bu ñëwee ni ñuy def mooy dañuy dem képp ku taxaw di julli wala nga toog di jaamu yàlla wala nga koy tudd wala ngay def genn jaamu yàlla gum mën a doon rek day ñëw fekk la fi nga toog jox la loxo yow nag doo ko yëg waaye malayka yi dañ lay jox loxo malayka day jëmmi leer leer amul yëngutu moo tax mën naa bari lool fi sa doo ko yëg ñi nga xam ne yàlla wuññil na leen mbir yi ñoom ñooy gis bëri bi leer gis leen ñu ñu ñu bari te loolu ñu néew lañ ci ci jaam ñi waaye dañuy ñëw jox la loxo yonte bee ko wax jëruma jaar ci xadis bi turu ci arab bi waaye ibnu xabaan moo ko nettali ak imaamul bayhaqi jël ko ci ibnu abbas mu wax ne dañuy ñëw jox la loxo am ñu toog fi sawet wet ñoom malayka yi am ñoo xam dañuy toog sawet loo ñaan ñu ne amin ba keroog fajar di fenk kon booy ñaan ñu lay euh, waxal amin ngir yàlla nangu te ñoom lu ñu wax amin yàlla nangu kañ lay doon moom leetu xadar mooy bis la bu ñu lëm dafa am mbir yu bari yoo xam ne suñu borom da ko lëm ismullahi al azam mooy tur yàlla wi gën a màgg nga xam ne yonte bi nee na lu ci waay ñaan yàlla du ko delloo tur woowu da ko lëm ci biir asmaaw yi tur yi kenn ku ne maanaam kenn kenn kenn maanaam am na ñu ko xam waaye ñu néew la waye tour la dal wo xam dañ ko lëm ci bir tur tur yi am waxtu wo xam ne ci bisub aljuma wo xam ne yonte bi neena lu ci way ñaan desu ko delo waye waxtu woowu itam dañ ko lëm ci bir bis bi ñi neena fi fii ñee nañ li gën wër mo dañ ko ci lëm amna itam lu melni tay salatul wusta di julli gu mag gogu itam dañ ko lëm ci bir juroomi julli ñi ne fajar la ñi ne takusan ñi wax lenen kon dafa am yo xam da ko lëm laylatul xadr ci lool la bok dañ ko lëm ci bir koor ndax yonente bi am na ci xaddis boo xam ni dafa wax ne bi mu wax koor dafa wax ne am na ci guddi goo xam ni fiihi laylatun xayru min alfi shahrin waa ne ci biir weer wi daal am na ci guddi goo xam ni moo gën junni weer nga xam ne ci biir weer wépp la wax waaye nag am na lu gën a feddaliku am na maanaam li ci gën a feddaliku mooy fukk yu mujj yi am na benn xadis boo xam ne da wax ne faltamisuha fil ashri al awaxir ngeen ko seet ngeen ko làmbatu na ngeen ko gëstu moom guddi gi na ko jéem eh, sàkku ci fukk yu mujj yi am na xadis bu ñëw gën a fetli loolu ne maanaam na ngeen faltamisuha fil witri fil witri min al ashr al awaaxir yi tool yi bis yu tool yi muy ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent tool yooyu fan yooyu nga xam dafa tool yonte bi beneen xadis bi da wax ne na ngeen ko ci sàkku kon xadis yi day ñëw di gën a fetli moroom kon dal kon génnut fukk yu mujj yi bis yi tool it génn ko bu ko defee itam bis yi tool yit ku ne am na ci wax bi Abu Saïd al Xudri ab saxaabiyu la xadis bi mu li moom dafa wax ne ñaar fukk ak benn la da ca dogu Sayyidna Abdullah ibnu Anis xadis bi mu nettali dafa wax ne ñaar fukk ñett la Sayyidna Ubay ibnu Kaab ibnu Abbas ànd ceeg moom moom dafa wax ne ñaar fukk ak juróom-ñaar la moo tax réewi naar yu bari da ngay gis ñoom ñaar fukk ak juróom-ñaar la ñuy su ko dee noonu nag ci sun gox bi ci biir yoon wi it gis nañ ab tënk boo xam ni am na sax ay bayit yoo xam dañoo xam ne sëñ bee ko waay muy bu feeñee altine nangam lay doon su feeñee talaata nangam lay doon mel ne bu feeñee gaaw comme tey jii fi ne ñaar fukk ak benn lay doon dégg nga nga xam du génn fukk yu mujj yi daanaka li jëpp gëstu boobu euh, bayit yooyu mi ngi ci addiyeetu sanati ak yeneen teer dañ koy wax ne askan dañ ne sëñ bee ko def am na nag ñoo xam ni gëstukat yoo xam ne wax nañ ne bayit yi keneen a ko def ku bokkut ak sëñ bi ci waa këram xëy na am na ñu ne sax sëñ bee ko def waaye eh, daa nettali rek wax ñu njëkk ña am na sax xisa buñ ci nettali boo xam ne sëñ mas naa ñëw génn ci njaareem di gis ñuy eh, yëngatu laylatul xadar mu lu ngeen def ñu ne ko dañu laylatul xadar mu leen ku leen ne tey la ñu ne ko yow kat yaa bind ci bay ci bayit yi mooy leen loolu damaa nettali wax ñu njëkk ñi rek loolu xisa bu ñu ngi ko ci nettali xamuma boo xam wér naam wérut waaye li ma bëgg a mooy am na ñu jàpp kon tënk boobu di ci tënku tënk boobu sax li ëpp ci murid yi mën nañ moom lañ jàpp ndax soxna May euh, radiyallahu anha moom la daa def màggal fii ci Touba. waaye gis nañ ci biir njabootu sëñ bi lu mel ne ñi sant Bousso gis nañ ci ñoo xam ni ñaar fukk ak juróom-ñaari la ñuy màggal te net li yañ ko teg ci sëñ bi lañ ko jëlee nga xam ne sëñ bi lañ moo leen ko dénk. kon gis nañ ñaari fan yoo xam ne murid yéeg loolu nag du wuute du dara lépp baax ñëpp a nekk ci njub moo tax kon lool jàppit baax na waaye yow murid bi itam dama limay li nga xamne mom la denk sama bop di denk ñep moy na nga magal ñaari bis yoy muy and ak mbosoo bi magal ñaar fuk juroom ñaar and ak wa kër soxna may magal ñaar fuk ak ben yi waye na nga magal itam fuk yu ci itam yep guddi yep rek na bis yi nga xam dafa tool na nga ca na ko magal nan lañ koy màggale mom guddi gi yi ñu koy màggale bari na li ci jitu moy ñaan ñaan li tax ma jital ko moy sayyidatuna aisha radiyallahu anha dafa massa a laaj yonente bi ne ko waaw su fekkon man tase ma laylatul qadr nan lay def lan lay bo mu ne ko da ngay wax ni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni da nga wax lolu lolu boko waxe yaangi ñaan moy yalla yow ku meuna jéggelé nga te da nga bëgg sax ak jéggel suñu borom dafa bëgg jéggelé nak ma jéggel suñu borom bu ko nit ki eh, jégguloo da ciy ànd ak mbégte bu ma bañoon a guddal naa la nettali yonent bi aleyhi salaatu wa salaam li mu nettalee ne suñu borom bu jaam bi jégguloo tuub fi kanamam ni mu ciy bëggee day mel ne waajoo xam ni dafa yoroon i bagaasam dem ca àllub kaañ àll boo xam ni xamatut wenn yoon fenn fumu kii ci biir eh, gott bi bagage yi réer ko ak waruwaay wi oto bi paan masaran bu doon oto te jii gileem la ko misaale amut fenn fu mu jëm dem ba mu yàgg mu ne naa tëdd fii ngir faatu daal bu ma faatoo mm, xëy na ma faatoo fii daal bi mu koy waxee rek di nga war waayu jekk ñëw muy oto bi daal jekkee ki baax mu dal ci dugg dem na muy bëggee dégg nga moom nga xam ne mën naa jaawale sax ci wax ji buy wax noonu sunu borom nee na mbig mu raw moomu lay am bu fekkee jaam bi ñëw na jéggaluwaat ko suñu borom ko wa la boo seetloo ci alxuraan eh, bari na yoo xam ne gisoo aayam bi nga xam ne moo gën a nekk aaya bi gën a yaakaaru ci ci ci ci alxuraan muy li mu wax ne qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dunuba jamian aaya boobu borom gaa yu baax dañ ne mooy aaya bi ëpp bi tax ñëpp mën a yaakaar yër ci yërmaande yàlla mooy dafa wax ne yéen sama jaam ñi lu si yéen bakkaar bari bari lu ngeen dëng dëng bu leen naagu ne duma leen yaram mukk waaw ndax man lépp lay jéggale loolu la wax loolu nag sa moo ko waral ki rayoon sayyiduna sayyiduna Hamza ñu di ko wax jaxas te nun ñuy wax naa jaxas parce que mujj na nekk ab jullit muy sunu sang bi mu ñëwee di tuub dafa wax yonente bi ne ko man kat damaa bëgg a tuub dugg ci lislaam waaye nag damaa def bàkkaar boo xam ne sayyiduna Hamza maa ko rey te yow ma ci rey ko dama dama xotti biir bi génne xol bi loolu bàkkaar la mënu ko wees bi Hamza yonte bi ne na mooy mooy mooy mooy xayru suhada sayyidu suhada la ko tudde woon mooy bu ñi dee ci jihaad mooy asadullahi lañ koy wax mooy gaynde ak suñu borom gi sëñ boobu kooku moo ko rey waaye bi mu bëggee tuub lii la wax yonte bi ne ko kat damaa gis suñu borom wax wa in ahadun min al musrikina stajaaraka fa ajirhu xatta yasmaa kalaamallahi mooy kii nga xam ne du jullit bu ñëwee ci yow na ko fat ngir mu dégg alxuraan ba mën a tuub loolu nag laa bëgg a def ci yow dama bëgg ñëw sa kër gi am fi fan su ma fi déggee loo xam ni dal na sama xel ma tuub yent bi ne ko ah yow de li ma yàlla digal ne naa fat ku bëgg a ñëw ci man bu du woon loolu tey jii moom neneen laay doxale yow ndax li nga def day naat sama baay bu ndaw ba xam sa yow yaa ko rey waaye nag toogal ci kër gi mu toog ci kër gi ñu teg ci diir su néew ab aay wàcc boo xam ni dama koy tënk rek illaa man taaba wa amana wa amila amalan saalihan fa ulaayika yubaddilullahu sayyiaatihim xasanaatin suñ borom wax ne ñi nga xam ne kat dañoo tuub tuub te jëf-jëf ju baax nee na yàlla dana leen jégal te it seen bakkaar yu bonee sax da koy far soppi muy bakkaar yi mooy muy ay muy ay yëw yéen te bi jàngal jaxas Seydina jaxas aaya bi Seydina jaxas ne ko aaya bi am na solo yàlla dana jégal ku tuub waaye nag sart mi ci tek moy nga jëf jëf ju bax illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan moy nga nga nga nga tuub ba pare gëm di jëf jëf ju bax loolu lepp mën nañu fi bañ fek fekk tuub rek daal di faatu moo ay bi taxu taxu ma mo a nak tuub gud sama xel mu ne kon bax na ñu tek ci fan benen ay wacc moy inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika yashaa ne sun borom len rek la moy moy nga bokalé ko waaye nag lu may loolu rek dana ko jégal ku ku ko neex nag la ko koy jégal Seydina jax si ne ko aaya biit ba tey baax na waaye li ma ci jaaxal mooy li man yesaawu ji li ma yesaawu mooy ku ko neex ginnaawam dana jégal lépp waaye ku ko neex ku ko neex jooyu mën naa maa dugg tuub ba noppi te neexuma ko mu bañ maa jégal te baa damay perte ñaar yoon su suñu yonte bi ne ko baax na mu daal fay toogaat ay fan ci la aaya bi wàcc qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dunuba jamian innahu huwa alghafuru rahim wa anibu ila rabbikum aaya bi nu jot gi mooyoon bañ jàngat ko li nga xam ne suñu borom dafa yàkkamti nit ki nit ki tuub nit ki jég jégglu si da wax ne yow say say bakkaar ëpp yow mi nga xam ne danga tooñ sam bopp def lu ne bul naa gu mukk ne du ma la yaram waaw te man lépp laay jéggale duggal rek foofu gis nga amul benn sart aay bi loolu moo nekkoon li tax aay bi wàcc Seydina Ibnu Abbas moo ko nettali kon loolu day war ne suñu borom ko bari jéggale kon guddi gi guddi jéggulu la képp koo xam ni def nga dara suñu borom dafa àgg ci wax ne inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina ki nga ki yi nga xam ne tey dañuy def bàkkaar jéggalu suñu borom ëllëg seen bàkkaar mënaat la wala seytaane man leen ñu defaat beneen bàkkaar ñëw jéggaluwaat nee na ñooñu sunu borom da leen sopp ci ñëw gi ñëw ak ñëwaat di jéggalu di jéggalu kon suñu borom dafa bëgg ko jéggalu nañ koy jéggalu dégg nga kon guddi gi guddi njëgal la sayyiduna sayyidatuna Aïcha bi mu laajee yonte bi lan laay def da ko wax lii la ko wax waxal allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mooy jéggalul suñu borom kon guddi yëpp guddi nañ ci jégalu ndax sayyiduna Sufyaanu Sawri danaa wax ne moom li mu gën a gis mooy ñaan moo ci gën ci guddi gi ku ko mën daal na nga baril ñaan rawatina nag boo ko mënee booleeg julli ba tey baax na kon lol ak ak xéetu xeetu yalla go xamna man nañ ko ci muy ñaan man sañ ci tam taxaw julli nax yunte mo xam man qama laylatul qadri wa ihtisaman lahu ma taqaddama min dhanbi guddig laylatul qadr kep ko xamni taxaw nga ko julli ko neena and ko ngeum yalla gu mat sëkk ak ko sellal sàkku ba tax laa jóg yàlla dana la jéggal mboolem li ma sa wessu say bakar bis bobu day melne def ben bakar Imam Bukhari moko nak li hadith bobu ak muslim ak tirmisi bu ko defee julli guddi nak aljana taxaw ñu bari na yaakaar ne bu ñu waxee julli guddi moy fi nga julle ge nga tambali julli ba fajar lolu baxna waye kuko mënut lislaam lépp ak la yonente bi wax na ne sallallahu alayhi wa sallam ne kep ko xamni julli nga ge ci mbolo mel nga ne ko taxaw xaju guddi xaju guddi neena itam kep ko xamni julli nga suba mel nga ne ko taxaw guddi gep kon yow mi nga xam sax jot muy la wala bok eh, sa sa sa pas pass agul fafa jullil ge ci mbolo julli suba ci mbolo boko ko mel nga ne ko taxaw ku julli guddi gep te guddi ga nak li gën moy nga bañ ko nelaw mom di jang qasida tuddi yalla jéggulu sun borom manam salatu al nabi lepp lo man ci lu bax rek nek ci ba ci berne sax nek ci xidma bi di jël xewal di jox gan ñi lolu lolu lepp lu ci way man rek ci lu bax yoy lañuy def ci guddi boko dundale non dal yow mel nga ne ko xamni ni dund nga de nga am juróom ñet fukki at ak ñet te lepp nga def ko ci ak jaamu yalla nan lañu xamé ne bis bi mooy bisub laylatul qadr moy yu bare bari ñew na ci yonent sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith yu bari hadith bi nga xamné ne imam muslim moko netli wax na ca ne bis boba jant bi rayon yi jant bi do do ànd ko tàngoor do du ànd day day day day day day day leer comme leeru jant nga xam du ànd ko tangor lol lañu setlu ci bis bobu amna benen hadith bo imam ahmad dako wax ne ka annaha tistun moy dako nuro nek nag yi nga xamne ne am mo xaw nek wala wer wer rek ak ab wer lol lay xaw mel nga xante du and ak tangor rek amna yenen hadith hadith ibnu Habban wax na ci yenen waye liñ ci wax moy du tang bu upp rek du sedd bo pit mom mom ki day mel wer rek de nga bis bobu seetaane du ci genn mukk mom mom bis bobu waye nak gaay yu bax yi nga xam nak ñoy ñoy nit yalla ñoo ñu neew lañ ci jamono ji waye ñom ñi fi massa jaar gis na ñuy net li yo xam dañ ko ci gis yalla di ko ci wan moy amna ci ñom ño xam bis bi wax nañ ne dañuy gis mbir yépp sujootal seen borom ño xam tay ji mo leen laylatul khatar yépp di di sujootal seen borom yoy nak kasu la xam nga da am lo xam pour nga gëm ko lu lu yomb la bi ne ku ne ne bari na ko ko gis ak sa bëtu bi am ñoo xam ne kàttanu sunu borom nag àgg na ci may la sa bët bi gis loo xam ni loolu buñ ci doon détaillé gis na ñoo xam ni duñ sax nituk yàlla waaye li ñuy gis liñ mën a gis yow gisoo ko ci ay couleur ak nangam ak nangam loolu am na moo tax am na gaa yàlla yi guddi googu yoo xam ne suñu borom danañ ko ci wan bokk na ci fépp leer ngir leerug malayka yi ba ci bërëb yu lënd mi sax day leer ñu di ko gis bokk na ci itam mooy ñuy dégg nuyoo bi malayka yi nuyoo ak nit ñi bokk na ci te mooy ñu ñu nangu seen ñaan loo ñaan nga gis ci ay fan yu néew ne loolu yàlla defal na la ko loolu yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ni day day am bokk na ci dem ñu gis yónnante bi alayhi salaatu wasalaam te loolu moo ci gën a jafe te loolu moom mooy xéwal ga waaye yooyu nag ku ko gisut tekkiwul ne dundaloo guddi gi li yow li nga war a def rek mooy dundalal guddi gi yee sax même boo gisee wala boo ci gisee dara sa yoon bul ci jéem a bul ko jéem a faale ndax yooyu mën naa fitnaal nit Sëñ Tuubaa dara wax ne karamatul waliyi an la yansiya fi zahirin wa batinin in usiya karama dëgg-dëgg xar baax dëgg-dëgg mooy nga tegu ci siratul mustaqim rek te bañ a yi ci des yépp fitna mën na caa juddoo ndax seytaane ci wa mën na foye ak yeneen yu bare bare waxtu yi du ko may kon li solo yow nun nun sun classe gi nanu tënku rek ci jéem a màggal bu ko kon ñàkk màggal guddi day lu day lu rëy lu danger yonte bi da ci xaw a tëkkoo dafa wax ne inna hada shahra qad xadarakum wa fiihi laylatun xayru min alfi shahrin man xurimaha faqad xurima alxayra kullahu wala yuxramu xayruha illa maxrumun yonte bi nee na kat weer a ngi woo xam ni ñëw na te guddee gi ci goo xam ni moo gën junni weer képp koo xam ni sàggan nga ba ñu xañ la yoolu guddi googu nga xam ne gudd dundaloo ko jàppal ne lépp lu du yiw rek faat na la raw na la kii ko yàlla xañ daal guddi gi mooy koo xam ni kuñ xay kuñ xañ wépp yiw la koo xam ni daal dafa maanaam xañ nañ ko wépp yiw rek kon loolu mooy laylatul qadri yàlla na ci yàlla àggal ak jàmm Sëriñ Tuubaa nag ku ko fonkoon la wax na ci daana wane ngëneelam yaa yaa chahra rabbin karimin fiika jaadalana bi laylati alqadri daati alfadli warragadi inni uhibbuka hubba daati da talabin min maliki fiika isaadan bila awadi di ñaan suñu borom ci weeru koor wi di wax ne ko ci nu may laylatul qadr bi nga xam ne guddi ngëneel la guddi la gu xéewale goo xam ni yàlla baaxee na ko jullit ñi képp koo xam ni da nga màggal nga ko rek da nga ci am yu reey reey reey ci ay tuyaaba yaakaar naa mën nañoo yem foofu di ñaan suñu borom àggalañ ci ak jàmm te nu màggal ko kon daal fukki fan yu mujj yi daal na ko ñëpp màggal rek ku ko man guddi gu ne daal nga julligee ci mbooloo julli fajar ci mbooloo te it biir guddi ga loo ca man ci ay jaamu yàlla nga def ko bu mënta ñàkk tëddit bu 4 heures wala 3 heures demi nga nekk ci jéggulu suñu borom ak jàng alxuraan ak jàng xasida ak lépp loo man ci lu baax bakkar ak fajar jot والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بن ولا بن يتي ولا بن خنتيف ولا لن بن جل كل هنتوا